salaam salaam sama gaay maa ngi leen di nuyu di leen ziar pour yéen ñi nga xamante ne euh, yéen a ngi may topp si whatsapp bi euh, defal vidéo defal vidéo temps yëpp euh, c'est parce que am na lu ma doon waaj rek moo tax defaguma woon vidéo boobu ba léegi ok mais ñëwaat nañ pour defal leen benn vidéo boo xamante ne su benn application la naka la ñuy gagné xaalis ci internet bi waaw léegi dañuy ñëw dugg Gazap application bi mu ngi tudd Gazap ok application non maa ngi jégalu application baa ngi nii application baa ngi tudd Big Gas léegi euh, balaa ngeen di dem Play Store di ko fa a wuti man dinaa leen defaral application bi si suuf description bi incha allah dinaa leen defaral lien su suuf description bi. ok sama gars léegi application bi boo leen ko tijjee nii lay présenté woo euh, application bi. Euh, boo si bëggee gagné ay ay point léegi nii ngay ay pièces euh, instant nii man maa ngi si deux cent cinquante neuf pièces te application bi euh, maa ngi koy soog a yël nii li ma wane ni parce que presque boo leen si nekkee lu yàgg da ngeen matal li nga xamante ne moom lañ leen laaj léegi pour nga mën a gagné xaalis il faut nga ñëw fii léegi non non non maa ngi jégal il faut nga ñëw fi nga demande de d'étendre votre cerveau ak les xaal ma wan leen pour nga gagner pour nga pour nga commencer gagner xalis légui faw nga ñëw fi enregistrement quotidien gagne de 10 pièces par jour vous avez connexion pour moi tous les 24 heures gratte et euh, gagner des pièces, obtenir 3 cartes à gratte tous les 3 heures. Gagne de 50. léegi lii lañ la wax après dañ lay may ay carte yoo xamante ne euh, par cinquante pièces la léegi fii tamit offre à vendre jouer jouer et de gagner léegi fii da ngay jouer di gagner xaalis offre vendre enquête léegi fii dañ lay jox ay enquête sondage euh, sondage daal mooy ñu lay jox ay question nga koy réponse et tout sax léegi fii tamit euh, ay sondage la parce que application bi application bu neex la man mi sax xam naa participer de sondage et gagner léegi mën ngeen si gagné xaalis bu bëri léegi pour euh, minimum de retrait bi nag hmm, minimum de retrait baa ngi nii pour ngeen mën a commencé di retrait il faut ngeen am lu tolloog deux mille cinq cent pièces pièces léegi boo leen amee deux mille cinq cent pièces euh, da ngeen di bës fii rek fi ma def lu lu affaire yi échangé euh, deux mille cinq cent contre quinze dollars léegi deux cinq cent pièces quinze dollars lay doon léegi pour yéen ñi nga xamante ne da ngeen di soog a ubbi seen compte. léegi bu ngeen ñëwee euh, utiliser leen sama code de rétention maanaam sama code promo léegi boo leen bëggee utiliser code promo bi nu leen di def léegi da ngeen ñëw euh, gis ngeen euh, li nga xamante ne mooy code bi laa leen di wan nii code baa ngi nii léegi code bi moo nekk nii léegi di ngeen di ñëw fii fi ngeen di ñëw gis ngeen fii code bi ma leen woon fële moom ngeen di ñëw ka euh, euh, boo leen bi ba pare di ngeen di ñëw fii nii defi code bi euh, moo leen di permettre ngeen gaaw a am deux mille cinq cent dollars yi ok n'oubliez pas de s'abonner s'il